juste en deux minutes euh, dama ciy ñëw euh, Karim Meïssa Wade mooy nit ki nga xam ni bon ci maanaam Sénégal moom laa ci gën a yërëm àdduna moom laa ci gën a yërëm parce que Karim Abdou Karim Meïssa Wade 2004 ba tey bi ko bàyyi ji ñëwee def ministre conseiller au niveau de la présidence ba tey ay attaques lay dundee ay sosal tuumal moom laa gën a yërëm ndax ay attaques sosal tuumal dafa xeex ci façon bu ne ci xeex boo xam ne honneur am dafa joxe boppam toog noppi kenn mosul koo dégg mu ne la diw diw mais mun ne wala diw diw caam 2005 ba tey bàyyi ji jox na jox na ko ministère jox na ko àdduna mooy yor réew mi buur la buum mi duggi avion lay jël jet privé nangam cinq ministères non defal ndànk no loolu duñ ci ñëw détail no xaar jët jë sur bon loolu mën naa ci ñëw sax bu la neexee defal ndànk mën naa ci ñëw en 30 secondes ñëw c' était sous la signature de ah, voilà merci beaucoup may di ma may may ma tuuti souvent di ma génneel brèche di extrapoler Macky Sall moo doon signé étant premier ministre avec euh, consignature de Abdoulaye Badji directeur exécutif de l'ANOCI moo tax lu doon charge ak kérosène buy dem ci jet privé bi ci xaalis boobu la doon jóg Ablaye Diop moo ko doon génnee ministre des finances ma jël brèche la rek dañu bàyyi di extrapoler dañu nekk ci débat actuel li may ñëw euh, damay kaddu Karim Meïssa Wade mosoo leen ko dégg mu taxaw ba ñit ne ko sa bopp weex na kii wàcc na cinquante mille milliards deux mille milliards cent milliards cinquante milliards mu jël avion ñëw toog point fekk nañ ko guddi jàpp tëj sànni dugal prison trois ans six mois génn na waxul avocat mooy yëpp ci ay diplomatie dem na extradé nañ ko réew mi dafa am borom ku koy ki ñu ko fal mooy euh, Macky Sall la ko Laay Wàdd defal gannaaw jur ko gannaaw jur ko la ko Laay Wàdd deful defal na ko lépp seede na ko ca déju baayam Abdou Karim Meïssa Wade suba ngoon mu ngi dégg lu ne ba tey mu ngi en euh, aux États euh, euh, au Qatar mu ngi déggante parti parti nag laay wax da ko fi teg 74 moo formé lépp luy parti ak démocratie en Afrique lépp lu nga xam ne organisation ak ni ñuy mën a liggéeyee parti politique parti bi mu ngi fonctionner ni nga waree à tous les instances mu ngi fonctionner ba ci section yi ñun nii ñu ñu ndaw yi yëpp ñu ngi déggandoo. Abdou Karim Meïssa Wade n'est pas le leader bu ñu naan nii la ñuy jaaree mais dafa doon le bon profil te man defe naa du waxuma ko fi ab Cheikh Yérim Seck wax na ko fi samedi fii ci plateau bi ak mooy mën a nduur c'est le bon profil boo xam ne ñun mën ko amee.